bébé Amina bébé Amina kaay waaye bébé Amina temps yi moom kër gi moo ngi toj de. si sa ñoom bàjjen ak sa tànta. Mm. ñoo ngi dëbb kër ji. yëguma ko. ah yëgoo ko waaye nag sa tànta dafa bon te moom mooy tooñ sa ñoom bàjjen sa tànta bon na soxor na yem na la fu la yàlla yemul xam naa ci lenn moom yow bis bu ko sa àq dalee du baax ci moom. sama àq bu ko dalee moom àqam dina la daal ndax lu mu dugg suba ba ngoon jot. yaa ko si dugal te yow mag bu seytaane bu mën a tas kër nga sëyi ma si woot yow laay wax sa affaire yu ñàkk fayda ma si woowaat. ah déedéet Amina mi ñu naan sept la am ci amul sept ans Amina mi am na quarante deux ans waaye kii mën lay toroxal waaye duma ma ci boole samay wax. Pa Moussa. Khadijatou ça va. oui ça va. yaa ngi suba si. oui ça va alhamdulilah. ça kon kër gi fan yi moom nii la mel ah na waar de damaa joom. comme naan. ah li xew kay jarul la koy wax yaa ma ko gën a xam nag maa tiit man. gis nga Xadijatu Amina wax na ma lépp gis nga nag jigéen war na di daw lii di fen ak nettali mais ñun nag sant nañu yàlla bu baax. ba suñu yaay na fi mbay yaruñu si lool def na si ñun éducation bu baax. waaw Moussa ma lan laa fen ak lan laa nettali man de defuma man lu dul di leen di leen jàppale chaque jour di leen défendre seen tante heure bu leen def heure bu leen bëggee def ñaawteef ma taxaw ci tey ji amul leen lu ngeen may fay waaye yéen ñii tey ji lan la lan ngeen ma dikkee yàgg sa rakk gis nga yow sama tante lu mu dugg suba ba ngoon yàqu ko si dugal. wala nga jàpp ne man xaw ma lu xew ci kër gi. xam naa lépp de dama amul seen jot. te ci gor la xajuma ci ay teesante ak yooyu. man de ma togn sama bop man mi nga xamante sama xol bu rafet moo may man ma togn sama bop way Pa Moussa baxna na chaque jour ma leen di défendre sa kanamu tante amo loo may de wax lu dul sama xol bu rafet moo ma sonal mais yàlla baax na. respecté naa la trop nak à part d'aujourd'hui sa tànk bu ko tegal sama buntu nek te so paree ya na nga juk dem. Kya ok nu mun naa la. ma àlloo sa baraka ji xam nga liggéey bi su ma ci nekkee du ma am benn jot lolo tax waaye xam sama xel bi mi ngi ci yow. waaw tax nga bàyyi ma fi ma nek ci mission bi man kese. waaw war nga kër gi nag mi ngi neex. neex kër gi de mi ngi nii rek barki démb kër gi toj. toj. waaw lu xew ci kër gi. xanaa mer bu bon bi yaana. lu yaana def. yaana dem wuti ponkalu maamu sëriñam. sëriñ waaw. Hmm. <laughs> andi ko ci kër gi sëriñ bi jox ko ay xarfa xuufaam mu def ko ci kafeem nee na yoo yaay ñëw taxaw sama wet mel ni dammel taxaw naan miss ba naanoo kafe bi hmm. danga maa def dof ginne pesumati xanaa miss naanoo kafe gi mooy miss yaa ngi kër Cisco man damaa dof wala ginne damaa mbecc ñëw nag taxaw jox ma kafe gi miss taggal ma samay maam sama xam nga bu la bëggee def dara day mel ni moom moo ñu mag di diñ def yëfu magu te fekk ne ëpp ñu xel hmm. ma ne ko mu jox ma kafe ma ne ko yaana mu ne ma naa ma ne ko sa kafe googu delloo ko naana mu ne ma damaa fi suur sama biir daa fees ma ne ko waa kafe daa mën a feesal biir kafe mën na feesal biir miis lekk buñ ko tegee bu ci lekk yow kasa buñ la joxee lekk bu ko lekk tant que taajuñu bool ñëpp toog te bu ñëpp toogee tant que ñoom tibb ñu miis bul tibb man dama dama tiit ci ñoom de. la gën a tiit ñoom mais man faalewu ma leen ragalu leen buñ joxee lekk du lekk buñ ma joxee naan du ma naan ndax seen jëf bon man dafa gën a jàpp ma xam naa leen bu baax yaa may dégg ñii luñ ma def loo ko def kii yaa yow tooga foofu yow man maa ëpp fin la gën a xam li may wax xam naa ñii bu baax a baax indi na fi sëriñam nag maa xam nga ne dinaa ko topp tànk hmm? sëriñ bi mu fi indi dinaa ko topp tànk te moo la ko waxee war nga maa gëm ndax am naa fit bi dinaa ko topp ji tànk xam fan la sëriñ bi dëkk xam lan mooy mission mag ak yaa aana xam lan moo ko indi ci kër gi xam naa ne moom lu bon lay def mais loolu yëpp su ma dinaa ko découvrir dinaa ko xam war nga maa gëm wees hmm. dëgg la yaa ma fit yaa ma ëpp xel su la neexee waaye dama ne fii moom daanu nga parce que yaayaana lu dem jëli sëriñam indi ko ci kër gi fay ko xaalisam ngir mu ñaanal ko yow nga topp sëriñ bi ba këram mu di la wax li ko yaayaana def loo ko sa sëriñ bi du ko mës a def mm. bii moom raq daanu nga loolu nga foog mhm. dinaa ko def daanu nga maa la ko wax dinaa topp ji sëriñ bi tànk te su ma la waxee dinaa ko def yow war nga kaa xam parce que sama fit man lu ma may rek sama bët da koy jëli wax naa la lu leer li ma li ma wax man laay def hmm. yaana capable. ana yaana. man ñooñu damaa toogandoo ak ñoom xool ko si biti. xanaa dama bëgg a génn ruube ko. ñoom sekkuma ak sax ak ñoom wax. yaana. ah ah ci ah, <laughs> yaa sama toog nii. waaye ci ne. waaye nii rek yaay eh, eh, nañ la kat. balaay maa leen raw. waaye foo nekkoon ñaari fan yàlla. yaa soo toppee liggéey bi nan ngay ñëwee fii. ah ah waaye loolu sa cër la loolu sa cër. liggéey bi rek xadi xamul na yaa ngi ñëw de. ah ana moom dama ko yónni marché. bu xamoon ne yaa ngi ñëw xam nga naan damay toog xaar sama njëkk lu baax la. xadi moom yow dangaa baax. di sama jëkkër dangaa baax da dangaa yaru xale bu yaru xale bu baax nga. maa ci doone. maa ngi nii rek yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm. ah ndaama na mu naa la. waaw Cisco moom ñëwagul. Cisco de dañ koo nam man man sax laay wax man dama koo nam ba xaw ma fu may taxaw ndax bong bong yi may indi buy ñëw. <laughs> yaa na boobu. ah ay beñe yu neex. bong bong yi maqal dana mën yooyu. <laughs> ah Cisco nag yàggul ñetti fan la woon lay def te def na ñaari fan foofu. waaye dañ koy nam dañ koy nam waaw loolu moom ko moom sa yow moom sa goro la yow. ah ndaama namu naa la. di lay baala la waaw. dañ ci jàpp <laughs> si yow. Ah, waaye yaa na lan la. ci lan doon. damaa toog nii rek. te laa doon seetaati. Ah, ah, ah waaw dama toog nii rek. kon baax na xaaral ma dugg xool Papa Moussa ñëw. Eh, eh, eh, kay kay kay Papa Moussa nag day nelaw. daa guddee tëdd. ah day nelaw. bàyyi ko mu grâce matinée bu ko yee di ko yàqal yaa ma gën a xam xam nga moom sama séeri la. waaw ah, dëgg la te dama koo bëgg ci sama xol. dëgg la bu ko yàqal. Papa Moussa moom sa chéri la moom. séeri. garaawul <laughs> xaaral ma dem ci bis. ah kii yaa yow mii. maa ngi ñëw léegi yaa. waaw yow kii yaa ngi xam na boppam. kii yaa ngi xamul boppam de man dama yee papa Moussa loo yee papa Moussa ah dëgg la lu ñuul. Ah, tos. ci loo nekk. yaa ngi ngi sant bu baax kay. Ah. xam naa xàmmeewoo ma de. déedéet xàmmeewu ma la. xam nga yaa ana. yaa ana. mère bi dëkk fee kër gu marron gi kër étage bi fële fenee ah yaa ana dégg la dégg la yow yaay doomam waa ndeysaan yow la sa njëkke yi sonal lool laay man mii la yow sonn nga sonn nga sonn naa trop trop mhm. ay waay massa coono génna la góorgóorlu mhm. yaa ngi dégg sa yaay nag wax na ma lépp ba liggéeyal naa ko loo xamante ne nii incha allahu rabbi si kattanu yàlla ak mbaaxam mhm. jàmm rek ngeen di am ndax defal naa ko loo xamante ne tant que respecté na nombre yi yaa ngi dégg kafe gi moom na siy sotti rek saa yu waree naan café rek na sa sotti li si des nañ ko def si lekk ñoom ñu koy lekk bu ko defé jam rek ngeen di am ci bir kër gi. loolu la bëgg jam day am. loolu da la bëgg ndax man da mm. fum ne. Mm. sama yaay fu ne day fay duggu me gisagul sëriñ. te yow mi xamna doy nga ma. Mm. bëgg na dal mom li nga def mom, nga gën ko yok ndax sama njëkk bi tuddu miis. Mm-hmm. koko am fit ndax kiya sax. mën na ni mom waxam bari te du gëstu. waye miis day ci day gëstu lu ne mo koy def moma ma lëjal. Mm-hmm. waa xanaa xamu kiya mm-hmm. koku biddeewam. Euh, xar la to xam nga xar neex naa korkoral ba jax ko ndax xar moom yom na jàpp waaye miis moom bideewam gaynde la to xam nga gaynde neexut a jàpp dafa am fit dafa naqaree jàpp te dafa dëgër bopp waaye fi mu nekk nii li ma li ma war a defaat bu ma ko defee mhm. non miis moom dama ko naan ciix rek téye ko miis daal xama sax man lu doon ma gënal mu génn kër gi dem man daal miis moom na na kër gi loolu loolu loolu day day day am day am kiyaa moom mm. temps en temps sax mën naa ñëw waa comme ay doomu maga ma ne ci kër gi mais miss moom mm. maa bëgg nga naaw talal ma ko mu dem dama koy naawtal ndax lëj leen a lakk la ne day génn Sénégal dootul jege kër gi Fisco jël numéro te être euh, kër gi def ci sama tur ak sama turu yaay ma géré jeex na loolu laa bëgg nee sa yaay na ma may rek ba ma jàpp miis ba pare xam nga bidéewam dafa soxol ba ma jàpp ko ba pare bu ma ko jàppee rek moom sa jëkkër mooy jël kayitu kër gi xaatim ko sa tur ak sa turu naa loolu soo ko defee. naa sama yaa la fay waaye man dinaa dooli. man cee dola. gis nga gis nga miis bu ma koy li bu ma bu may concentré wu si moom damay mandi. Eh, sama jikko ceddo gi mooy ñëw. mandi damay mandi ba ne toj naanal na naanal na sàngara gi sax jéegoo li ma laax bu may sax damay mandi kontaan naa ci yow kon ñëwal kër ga waxal sa yaay waa ah, dinaa fa ñëw loolu laa bëgg ndax am na beneen liggéey bu ma war a eggali na saf day gën a saf waaw gën a saf dina ko dégg incha allah euh, Euh, maa la ñu waxtaan. mbaa jàmm. Euh, jàmm la du jàmm. umpule woon ni man ak euh, yaay Cisco ñoo bokk ndey ak baay te dem si yàlla na fi mbay maa ko ñaani woon mu am nag ay coow lu sew lu may dégg ci famille bi si coow loolu sa tur mi ngi ci biir ci la ma ciy dégg. sa kanam joxuma loolu sa diggante yow ak yàqale yi ma bëggoon xam nag coow noonu nan la jërëjëf tonton mën de jotee ñoom dara dégg naa daal ñuy waxtaanee ni que man dama bañ Pa ak bébé Amina te loolu amul tonton de toute façon bàyyil xel na ñoom ay grim lañ booy def ak ñoom jàmm booy def ak ñoom defal ak ñoom jàmm ak salaam rek sinon lu ko may dina këpp sa kaw ok. tonton na sa xel da ndaxte xale ma dama leen jàppee comme sama doom. dara du leen métti incha allah bu soobee yàlla. c'est euh, moom mi ok baal ma def. maa ngi sant yàlla maa fay fay fay teraanga. borom teraanga yi ci man. fay teraanga fay. fay teraanga fay. fay teraanga. noo def sant yàlla yaa ngi ci jàmm bu baax alhamdulilah teraanga euh, en fait euh, maa ngi jógee ana coow li bari na trop ci diggante xale yi ak xale yi li muy dégg si coow bari na trop li la wax ne nag suñu famille xamuñu ay caaxaan xamuñu ñàkk fu la fayda gis ni bis bu ma ñëwee fekk xadi muy door xale yi su boobaa dina xam ne lépp dëgg la te su boobaa kër 86 dañ koy dóor ci kër gi te balaa ñoo fay egg nag mu waxtaan ak yow nga bàyyi ci xel bu baax a baax li ma la wax ok. Mame Mbaye yow na xamoo sa bopp gis nga kër 86 googu ngay wax maa ko mag judduma 86 judduma 84 judduma 85 nii de 87 yow na xamoo sa bopp bala nga baye ma xam sa bop li ma xam ci yow bari na de. yow ana lo xam ci man. bari na. ana yow lan nga xam ci man. ma la li ma xam ci yow. yow tak bo xamee ci man ben xamna ci yow fuk yaay deg dégg bu li ma lay wax lim la wax nak baye ci xel bu baxa bax li man lay wax ni nga ciowri nak mi ngi bëgg dugg ci ay ay mag mi ngi bëgg passer niveau xalé dafa attention bax ci li la wax man xamaloo ma dara ndax ba sey jotté dama sey ah, baxna sey ba jur luy sey baax na ba jur luy sëy laa def. da nga ji sey ba jur luy sëy. xamaloo ma dara li ma xam ci yow bari na. lolou nga yaakaar. yang may deg ba baax. rek ma wax la. yang may deg yow takko juro yow amo loy lijjanti amo loy expliquer maa mbay li ma xam ci sa famille mo bari li ma la xamal dafa bari ta maa mbay bu ma taxaw wax. ana loy wax. en tout cas coow li maa maa fi nekkul di jokk maa ngi jokkale. dama ne tey ngaa jug bala ma laax sa bopp. ok bis bu ma ñëw fekk xale yi yi si kaw xale yi di ngeen xam ne lépp dëgg la. jugal bala ma laax sa bopp moo gën li ma xam ci yow bari na. ngeen koy def trop. bala ma laax sa bopp.